sama gars yi nag euh, mun nañu soxna Bator euh, weer na boppam euh, mun nañu sax weerati na boppam ba mu demee gis ak kii di bi pour proposer ko ay affaires yi nga xamante ne c'est illégal ba tax na moom mi lay juge bi euh, xamal na ko ni carrément euh, nekkul comme yeneen euh, juge yi nga xamante ne caaxaan moo leen tax a jóg moo tax moom mi lay soxna Bator daal dina fay jëlee gàccee bu mag a mag te yaakaar naa moom mi lay soxna batoor amul sax jom ba dem di proposer li nga xamante ne lu doy waar li di ay juge ngir mu am ndam ci kaw kii di Marlo Tasdir bi euh, leeral na ko nañu nañu nañu te yaakaar naa soxna Bator naru gañe ci kaw kii di euh, Marlo ndax euh, ku leen nar àtte xam na kii Marlo amal affaire moo nekk soxna Bator moo taxit Marlo am na quatre-vingt-dix-neuf chance pour mu gañe li nga xamante ne moo nekk victoire bi ci contre ki nga xamante ne moo nekk mari kii ni soxna Bator moo taxit actuellement ni jóge na foofu noonu soxna Bator bëggul bëggul moom kese mbiram yàqu moo tax euh, dem na di yàqal kii di euh, code pour euh, jëkkëram bi pour sëy bi mun a am problème moo tax it mu ngi si nekk def na si ay jéego ba tax na moom mi lay soxna mun nañ ko topp fi di wax ay mbiram ndax nekk na jigéen boo xamante ne fu waaye imaginer bonaayam rek toll na foofu noonu moo tax it chaque jour tamit dina am ay échec ba tax na gars yi nañ patienté xool épisode bii di mujjee.